al SONES di benn ci bànqaasu nguur gi nga xam ne moom nañu dénk séddaleem ndox mi ci réew mi rawat na ci ci taax makalaaj Ndiogou Diène bëgg waxtaan ak yow euh, jafe-jafe ndox mi nga xam ni ñu ngi ci 2020 ba léegi Sénégal di jànkonteel ak moom bu dee ci ndakaaru euh, nga xam ni jàmbat gi bëri na fi fan yee euh, mhm. fu situation bi toll fan moo am fu amul fu des ci subak tey gi jërëjëf Babacar ma lay sant ci opportunité bi ñu may pour ñu gën a euh, wax euh, ak euh, ñi nga xam ni ñoo ñu déglu di ci profito it di massawu bépp sénégalais bépp ku yeewoo Dakaaru ku yeewoo Sénégal koo xam ni xëy nga wala mës nga xëy am jafe-jafe ci ndox Euh, wax nga ko fan yi ñu weesu amoon nañu quelques perturbations ci réseau bi loolu nag euh, je pense que duñu dellu si li nga xam ni moo ko indi woon ay intempéries ngi si woon mais aussi ay travaux daal d' entretien yu bëri ngi si woon euh, tey mën alhamdulillah mën nañu wax ni situation bi mu ngi dugg à la normale en tout cas si information yi nga xam ne ak réunion yi nga xam ne ñu ngi koy am ak exploitant bi waa Sen'Eau képp ku daan ku amoon ndox te nga amoon ci jafe-jafe tey situation bi yaakaar naa ñëpp gis nañ ni amélioré wu na et dina gën a amélioré wu incha allah euh, ñàkkul nag mu am ay poche dure nga ñuy naan euh, côté yi nga xam ni dañoo kawe wala yoo xam ni dañoo cate Euh, maa ngi si xalaat sama yenn mbokk yi dëkk fële si comico yëmbal côté Daaray Kamil euh, côté àllu Baye Ñax euh, donc yenn yenn gox-goxaat yi lébu gi 2000 côté Tëngéej donc am na ay poche encore yoo xam ni xaw xaw na dur un peu mais yooyu ay poche la yoo xam ni daanaka seen Euh, amoon nga ñu irrégularité dans leur euh, alimentation. yaa ngi wax euh, ay tund yu kaweeg mhm. ñoom seen mais ci ci seen xam-xam war ngeen xam ni am réew moom faaw mu fu kawee fu suufee fépp mënta doon ab plateau bu ngeen ni samp seeni tiwo ak seen système lu tax du ngeen sóoraale kawee geek yeneen mbartal yoo xam ni niñ fay sampee tuyau waruñ ko sampee feneen foo xam ni dafa tàllaku. waaw loolu lépp gañ koy soor wante tamit baax na it bu ñuy wut ay dëkkukaay yit ñu def si li nga xam ni mois si war mooy euh, voi ñu mën a def euh, voirie réseau divers yi tamit parce que gale it ay quartier yu bees la euh, ñun tamit on nous met devant le fait accompli mais loolu lépp amul solo li amul solo mooy suñu li nga xam ni moom la ñu président de la république ministre bi sëñ Mbaye Thiam gi ñu ko fàttali saa su ne mooy fépp fu sénégalais nekk yóbbul ngeen ko ndox mel leen ni seen bopp la yéenay xëy suba am jafe-jafe ndox donc boo ko ŋattee ki sa bopp rek donc di nga ko def sa soxla te sa kéemtalaay kattan boo ko defee suñu borom dina la jàppale loolu moo tax euh, président de la république yi ci mu fi ñëwee tënkoon ay programme d'urgence pourquoi programme d'urgence léegi dégg naa la ngay wax suñu mbokki Tuuba yi ci euh, seen programme d'urgence mais noonu la ñu tënki programme d'urgence tamit pour Dakaaru Dakaaru umpalewul kenn ni euh, ndox mi mu ngi jóge fële ci lac de Guiers daanaka deux cent cinquante kilomètres sori na lool te usine ya fa nekk usine yooyu euh, bañ ko fagafee yàgg na bi ci mujj ñu ngi ko commencé liggéey booru deux mille Euh, booru quatre vingt dix huit deux mille daanaka la liggéey bi donc euh, et que si xayma gi nga ñoo defoon waroon nañu yokkaat usines yi depuis deux mille quatre même ah euh, la yeneen usines yu bes yi waroon ñoom mooy Kër Momar Sarr 3 mais si gis-gisu gouvernement bi moo taxoon mu tënk ay programme d'urgence mooy ay projet yoo xam ni euh, dina gaaw a indi ndox te yooyu ci ay forage nga ko mën a amee moo taxoon ñu def forage yu bari bari bari loolu moo taxoon d'ailleurs quartier yi nga xam ni gañ daan ñàkk ndox fii ci Ndakaaru ay Ouest Foire Nord Foire ay Mixta yenn yi ci Parcelles ni daanaka seen jafe-jafe ndox wàññeeku woon bu baax a baax a baax euh, yooyu tamit ñu ngi koy continuer saa su ne mais guñ ne nit ñi il faut que et yooyu ay programme nëgandiku la ay programme d'urgence te ndoxu forage tamit du ndox yoo xam ni euh, c'est viable mooy que ni euh, wute nax eau de surface mooy ndox bi ñuy jëlee si dex gi fële si lac de Guiers ndaxte forage euh, ren mën nga ndox mi mën na wàññeeku surtout avec les changement climatique ak euh, euh, quasiment effet climatique yi ngay dégg yëpp ci adduna bi euh, yooyu sax moo tax ci àdduna bi benn nit ci ñett ci àdduna bi amul ndox. Mhm. moo léegi yaa ngi wax ne fi mu toll nii jafe-jafe am na yaa ngi wax sax ne li ko waral bokk na ci intempérie maanaam ay ngelaw yeeg ay taw yooyu loolu lan la mën a demee ban impact la mën a am ci ndox mi ban manqué. non intempérie du ngelaw rek ak ndox. ak du ngelaw rek ak ak ah, taw intempérie ak taw. lan la ay aléa la quasiment mën nañu wax. Euh, xam nga nee na usines yi muy Kër Momar Sarr usines yi ñaari usines yi ay courant moo koy doxal yi diesel oil et cetera euh, si yoon bi entre Kër Momar Sarr ak euh, Ngaye Mekhe am ay forage duñ fay fortaatu Ngaye Mekhe am nañ fa benn booster benn. surpresseur bu mag mag mooy bu max ndox mi yóbbu ko ba ci réservoiru Thiès yi Thiès tamit ñuy jëlaat fa yeneen forage ndox mi ñëw en gravitaire di wal ñëw ba Sébikotane Sébikotane ñu amaat fa beneen booster beneen surpresseur boo xam ni courant koy doxalax yépp mu indiwaat ko ba Dakar donc euh, intempérie mën na nekk lu bari intempérie tamit si aléas yi mën na am tamit d'autres usagers yeneen ñi nga xam ni ñoom nga ñuy jëfandikoo ndox mi lu wute ak ndox bi nga xam ni moom la nit ñi di sangool di naan mais li amul solo mooy loolu lépp weesu nañ ko te tey euh, réseau bi alimentation bi mu ngi ñëw euh, nànk-nànk et que jot si ndox dana taxawaat de ñëw na tey waaye ah dana dana xëy mu taxawaat euh, incha allah Gabacar su suñu soxla gu dex bëccëg mooy ñu fexe ba sénégalais yi di am ndox sa su ne wante it euh, gouvernement bi bu fi fekkoon benn si buteelu ndox teg na si bëtam genn wàllu buteelu nee naa la euh, programme d'urgence foo ko dégg rek mooy tardement am na te tardement boobu si investissement yi la moo tax gouvernement bi tënk ci ndigalu président Euh, bu ñuy wax benn gëstu bu yaatu ñu wax ko un schéma directeur schéma directeur instrument de pilotage la et de planification moo léegi may gis-gis ay at yu bari ci kanam si boobu schéma directeur ki la ñu génnee projet bu mag gu mel ni ñetteelu usine pour ñu tabax ñetteelu usine fële ca Kër Momar Sarr. usine boobu léegi chaque fois fu ne li ngeen di wax mooy euh, tant usine boobu noppeegul tàmbali di dox jafe-jafe day am ci wàllu dox mi usine boobu léegi kañ lay tàmbali di di dox. boobu liggéey bi macha alhamdulillah sa sori na lool. te rëy na rëyaay boo xam ni moo ëpp ñaari usine yi nga xam ni ñoo fa nekk premier pàcc bi comme ni ko ministre bi waxee. fii ak euh, fin d'année début deux mille vingt et un incha allah première partie bi dinañu pare liggéey bi gisoon ngeen conduite yu mag a mag yi nga xam ni yéen a ko doon gis si kali bi mu nekk conduite yu rëy a rëy un mètre cinquante de diamètre nit mën na dox si biiram gulet ci Afrique sax ñuy indi conduite yu toll noonu yooyu yëpp posé nañ ko presque deux cent cinquante kilomètres la Kër Momar ba Dakaru usine bi nag moo des mooy usine bu mag a mag bi ñuy tabax Kër Momar Sarr bi di gis ngeen ko ci télévision bi fan yële passé mu nekk liggéey bu complexe bu bu rëy a rëy daanaka ci téeméer boo jël pare nañu fukk hmm, soixante dix pour cent yi euh, ou même boobu voire même soixante quinze pour cent et am nañu yaakaar ni fii ak fin liggéey bi dina antu ba nga xam ne dinañu mën a commencer les test def essais généraux yi. Mhm. mën ko éprouver pour que ndox mi askan wi mën si. xam xam nañ ni tamit euh, ñi yëngu ci wàllu maraîchage di mbayum ndër mi te nekk ci zone des Niayes rawatina ñoom li ñuy euh, muucu ci ndox mi di ko euh, roose seeni tool bari na lool. te ñoom ndox mi ñuy jël nit ñi mënoon nañ ko jëfandikoo di ko naan ak euh, toggee ak sangoo lu tax ñoom mënuñ leen branché ci yeneen réseau yoo xam ne lu ci mel ni ay forage yoo xam ni utiliser tu leen ay forage yi mën nañ jël misaal yi nekkoon caaro yi nga xam ni ndox ma xëy na naan ko léegi baaxatul lu tax maré ñi ñu ko ci wàllu maraîchage mënuñ leen connecté ci euh, forage yooyu ak ndox yooyu nga xam ni baax na ci tool mën na su koo naan. waaw jërëjëf euh, El Hadj Babacar je pense que maraîchers yi ngay wax suñuy partenaire nañu depuis ay at euh, amoon nañu ay forage yoo xam ne mu ngi ne woon fii si caaro yi forage yooyu sa njëlbeen sax moo ma doon jox ñi ñu ñu naan wante dafa am pollution wu nab bi moo si indi woon un peu de nitrate et autres ñu réhabilité ko si ndimbalu waa UEMOA ak gouvernement wu Sénégal def ci xaalis bu takku yi ñu def fa ay réservoir yu mag et cetera ñu amaatoon it yeneen forage yu nekk fële sa bët Sénégal mooy côté Berkelaan côté euh, Golam euh, et autres donc lépp ëpp na fukki forage ak juróom-benn yoo xam ni am nañ ko ndox moomu doy na pour maraîchers yi gouvernement bi dugal ci lu toll ci fukki milliards ci suñu xaalis pour rek. jagleel ko ñi nga xam ni ñooy def bayu dër bi euh, ñu ci bari ma leen nuyu di leen gërëm di rafetlu suñu partenariat suñu partenariat yi ak ñoom euh, di ci profito di ziar président Massey Diong euh, ñoom ñu ngi ci nangu nañu pour ñu dugal leen ci réseau Berkelane boobu ñu ngi ci réseau boobu moo leen ni may ndox ñu ngi continuer di waxtaan ak ñeneen ñi tamit te it am na ay jéego yoo xam ne yu bari gas nañ ko pour tamit ñooñu ñu dem foofu wante euh, c'est vrai ñooñu ndox bi indi bi bi ñuy consommer ci kër yi moom la ñuy consommer guléet sax Sénégal bokk na ci pays rares yi nga xam ni maraîchers yi euh, ndox bi ñu traité ndox bi ñu naan ci kër yi nga naan mais loolu volonté gouvernement bi la it pour que ñi nekk fii si ñaay bi mën a am koom ndax ñooñu tamit ñoo ñuy gundal buñ ko fàtte mais puisque ay partenaires nga ñu bana basculer nañ leen si beneen Euh, réseau agricole foo xam ni tamit am na assez d'eau et partenariat bi dinañ ko gën pour poursuivre pour que it euh, ku si nekk mën si gis sa bopp it. Mhm. leneen euh, projet usine dessalement bi ngeen waxoon fii ci Mamel maanaam usine boo xamante ne ndoxu géej gi lay jël liggéey ko ba doot safati xorom wax ngeen ko tey jii nii fu ngeen ci tollu ak kañ lay taxaw. waaw usine dessalement bi comme ñetteelu usine Kër Momar Sarr bi la rek comme yeneen usine yeneen projet sax yoo xam ni am nañ ko yoo xam ni yëpp schéma di directeur bi ko génne mooy gëstu bu yaatu boobu gouvernement bi gefoon am na ci Kër Momar sax am na si tamit gasalement gasalement bi gouvernement japonais moo ñu ko financé and euh, pour que ñu tabax usine si géej gi euh, ministre bi wax na ko démb si télé bi euh, liggéey bi am na décalage de un an parce que demoon nañu ba cappaandawu appel d'offre bi ndaxte it lépp loo xam ne dañ koy def ci acquisition ak alalu réew mi war nañ ko def ci transparence mooy appel d'offre ñu amoon un dépassement de budget, on a été obligé de nous reprendre appel bi pour la partie usine. Mais, Gassalma, bi, ñetti pàcc la ba si ñeent mais lan moo waral décalage boobu euh, ñu pousse mbir yi lan moo ko waral décalage boobu. dañu entre euh, njëg gi nga xam ni moom lañu xalaatoon. ak tamit aussi njëg gi nga xam ni moom nga ñu gis e que finalement benn entreprise dong moom moo qualifié woon donc pour que gën a yaatal compétition bi euh, ñu gën ko ubbi mais loolu am nañ ci ay alternative parce que gasalement bi usine bi la mais it gañ ci boole soppi lu mag junni si conduite réseau de distribution bi nekk fii si Ndakaaru umpalewu leen ni Ndakaaru euh, dëkku kolon la teg réseau yi tuyaux yi nekk si euh, dëkk bi si jamono colon yi la woon jamono maam yi la woon donc xomaat nañu xomaat boo xam ni wante it euh, ndox bañ fay ñàkk bari na lool ndaxte natt nañ ko si téeméer boo jël ñaar fukki yi ak juróom ñett yi si gañ koy ñàkk c'est c'est ndox mooy lu ñuy naan volume doo non facturé mu ngi ci vingt huit pour cent alors que norme bi ñaar fukk la donc moo tax liggéey boobu tamit def nañ appel d'offre bi et que liñ ci économiser ci ndox bu ñu soppee réseau boobu yëpp daanaka dina toll ci cinquante mille ci cubes mooy juróom mooy euh, cinquante million juróom fukki junni voilà juróom fukki junni ci barigo Euh, ndox loolu tamit toll na comme usine bi. Euh, comment mais mais mais euh, gannaaw waxtu wi jeex na waxi taax lañ fex boobaak léegi waaye kaw gi itam mar lañ yaa ngi dégg Touba sànq yaa ngi koy junj Touba sax mëneetu ko boole ci kaw ndax dëkku jamono la te ba léegi mi ngi ci hydraulique euh, rurale loolu beneen débat la waaye kaw gi ci boppam ñi nga xam ne ñu ciy forage dañu sukkandiku pour mën a naan démb gis ngeen waa Koumpentoum yay dox doxum ñaxtu taaliba na ca taaliba ndax rek manqué ndox euh, lu tax euh, ba léegi ñu toll ci am hydraulique rurale hydraulique urbaine lu tax mun mënta doon benn réseau ñu doon benn système combiné ko est loolu du du mënul doon saafara. waaw golu kilifa yi. ñu ngi si liggéey liggéey nañ ci sax ndaxte euh, xam nga euh, mbirum ndox dëkku kaw yi dëkku taax yi SONES ak SEN'EAU ñoo ko yore ñeneen ñi effort euh, wante si yeneen dëkk yi am na ci yoo xam ni bu ñu tolloo ci six mille habitants rek gànnaka am na si ñoo xam ne dinañ leen basculer ci suñu réseau comme nga ngi fi ñoom rek exec structurel wante si dëkku kaw gi euh, am na réforme bu rëy boo xam ne gouvernement bi defoon na ko pour mën ko professionnaliser loolu mooy objectifu gouvernement bi président de la république ministre bi waa wax na ko démb génne na alal yu taxu pour que ñu mën a mettre à niveau l'ensemble du réseau en zone rurale loolu moom nga ñu dénk yeneen délégataire de service public yi mooy Flexor mooy euh, Aquatech ñeneen ak ñeneen ñi ñooñu comme SEN'EAU la ñu comme SDE la ñu pour que ñu mën a gérer réseau yooyu dans ces localités ñooñu tamit ay professionnel la ñu et incha allah euh, dinañu dem ba euh, ñooñu tamit dinañu mel comme Dakar comme waa Saint-Louis comme waa Thiès et cetera na naxte guy lu mu rëy rëy si PEP la jóge Charles Faye <laughs> merci beaucoup Charles Fall Charles Fall directeur général SONES euh, ñu lay gërëm gërëm mbokk yi ñu topp ci suba ak léegi gërëm alaaj Njóogu Jeen